koy fay. tur bi naka la. Ndeye Fall. la fekk fii ci tefes su Soumbédioune gi amel yéen yéen a féetewoo waas gi. waaw naka ngeen dundee bi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci biir géej gi. Ah, xanaa Ahmed Aïdara bala muy wax muy xalaat rek. Ahmed Aïdara meen. waaw journal du ko génne rek wax ci. ñun dañuy lekk jën suñuy maam la woon. booba ñun juddooguñu. Ahmed Aïdara moom lu mu ci. ah dafa génne dafa xëy suba teel xam naa ñu bind loo ko rek mu bind ni jëli dafa am feebar. waaw ne lor na téeméeri nit de tamit baal ma. kon daal yéen ja Ahmed Aidara ngeen jàpp ne moo leen xam nga tax ñu lor ah. parce que moom xam na tefes. Hmm. moom ci buntu tefes gi la si la rajo nekk xaw ma teleem. Hmm. mooy Bougane Gueye Dany. Hmm. kon moom mu xam ni moom li mu wax sax bala ma koy génn sax a na koo xalaat ba pare ñun jëni ci la ñuy lekk man sama jëkkër mool la bu amoon feebar maa njëkk a daal ndax kon du ma ko jigéen ndax bu amee feebar bu dikkee wàllu ko samay doom ay seex laa yore Mouhamed ak sëñ Babacar ñor na yonent bi te seex yi yàlla yooyu noonu chaque jour jën la ñuy lekk man mii wax ak yow jën laa lekk jëni dara newu ci. waaw man looloo ma yéem ku ma wax mu ne ma jën ci jën yi laay lekk romb naa fee tamit ku tey dara leen. waaw xam nga lu jaaxal xam nga client yi ñoom dafa ah, dafa am ñoo xam ni dañu ne dañu neex a dañoo neex ndax man ma lekk ay jën ati at benn feebar ñëw rek ma ni ah yi. yàlla nag moo fi nekk fii kenn newu fi yàlla fi nekk xëy na bu ñu bàyyee jënd jënd si wurit xam na sunu wërsëg dinañ ko am du dëkk waaw ñoom ñi ñuy jox xaalis beeg bu ñu boole xaalis bi yàlla moo ñu boole ñoom ñu ñu koy jox du dëgg du force parce que ñoo ko liggéey ñoo ko moom waaye man yaayi Mouhamed ak Babacar jën yi waat naa ko ci màggaay yàlla dara newu ci nee leen jaaykatu yàpp yii xamuñu ñoo kombaloo xamuñu ñoo wax lii waaye yàpp jën yi dara newu ci nee na ñu ñoo lekk si ci jën yi loolooy dëgg. man sax bu toppee jën yi doog te xoolal bu la neexee sax ma may la léegi coof yi baax yi sumbu jun la nekk jar ñi sumbu jun yaa ngi dégg client yi ci corona bi ci la ñu waroon xam ne sumbu jun rek ay dëgg ndax ñoom coof dañ ko daan yóbbu Europe muy dem waaye te ci corona bi ñoom ñamal nañ leen tuuti coof kon ñoom xam nañ li ci jën ñoom waruñu leen yàqal sax ñu koy gëm parce que lekk nañu jën waaye tëri tefes Soumbédioune gi dafa yaatu ay kilifa ñoo ci ñaan di nga gis ne corona bi li muy bëri bëri yëpp Soumbédioune ñaata personne fii ñëw waaye yàlla musal na leen ba kenn musu cee dégg ni kenn am na ci feebar kon ñoom ci corona bi rek dañ doon jënd si jën 5-5 ñu xool ni Soumbédioune amul feebar ñuy jënd si jën kon bu feebar amee yàlla musal nañu ci ba léegi si dégg ñu ñu ni benn mbooloo Soumbédioune bokk na ci ñi feebar nee leen nañ dalal seen xel. ñu xam ne yàlla rek la juróom-ñaari sëñ Fallou yàlla rek a fi ne merci waa ku baax. feebar bi ñuy wax ne dafa nekk ci géej gi yéen ñi nga xam ne yéenay dem ci géej gi saa su ne nag ngeen dundee loolu. ah ñun de feebar bi dañ koy dégg rek ñu suñu jëm lañ dëkk mais nag wax yàlla feebar bi ñun gisuñu li ñuy wax ñu ne ñenn ñi ñoo ba Thiaroye sur Mer ba am xam ne ni seen yaram dafa ay picc ak yooyu kon yéen li dégg rek ngeen ci am. ñun dégg na ci am te tele nañ ko gis loolu am na moom loolu am na waaw mais du ne amul mais loolu am na mais Soumbédioune à part ñun ñun mooy Soumbédioune amul kenn ku mu si daal bokk noonu la ko mën est mais feebar am na mais nag li wax si géej gi ko sotti moom dara wóoruñu si. waaw yéen yéen a ngi dem géej boobu ba léegi. ba léegi boobu ba léegi ñu ngi dem géej. ñuy eh, sur mer ba tawat gi am na ñu may dal foofu. dama ko daa dama ko séenul fii ci Soumbédioune non fii Soumbédioune dara amu fii mool yi fii ne bi ñu xëyee cinq heures de matin tëmb nañu gis nga leen quatre heures ñoom ñëpp teer si nañu am na si jën yoo xam ne ni dañ ko denc démb am na ci yoo xam ne gis nga li ngay gis nii yóbbu yi bees tàq la tay la génn si géej gi te produit bi maanaam sumbu jun ba ñu fi nekkee ba léegi nii jeex ni dañ ko nga ci teer léegi indi ko mu teer ñii ñoo koy jàpp gis nga leen kii ci ancien mool yi la bokk mu ngi nii ay gaalam la yor muy teer muy jaay muy produit boo xamante ni benn problème nekku ci amul benn problème ku ko jënd da koy jëriñoo man mi saa may dem damay jël benn yóbbu suma kër bu jeexee mu jëlaat xam nga loolu su ma ko doon lekk maa ngi nii gisoo sama yaram benn taas bu ma am kon amul problème mais nag xam nga média yi ñoom bu ñu comment am na loo xam bu ñu ko médiatisé wax ni kat dafa am problème client yi ñoom xam nga rek am na ci nit ñoo xam ay tubaab yu ñuul lañu dañuy gëm rek lii dëgg la. kon ma la déggee média bi am na ci part de responsabilité. am na ci part de responsabilité bu rëy a parce que soo gisee sax démb femme ba muy aji saw bi ñuy wax seen TV dafa dem ba journaliste yi dañu wax ne ñun kat lii def nañ ci erreur. ndax lu am bala nga koy bind wala nga koy génne da nga ci am lu la leer nga génne ko mais dañuy dégg rek nga dikk rek bind ko wala nga dikk génne ko loolu day yàq lu baree bari parce que soo xoolee fi mu ne nii semaine bi ñu génn nii li ñu yàq ci ay milliards lañ yàq man mii di wax ak yow wallaahi lesi liñ ma yàqal mënu ma ko wax ak sama morom maa ci gën a tuutile parce que li ma denc ci produit kenn xamul nu mu toll lépp yemale nañ ci ñoo ngi taxaw mënuñu ko jaay te loolu moo ñu ko andil moo tax nit ki jotul tamit euh, nguur gi. Hmm. ministre ministre euh, ministère de la pêche. tamit hmm. euh, wàcc ci terrain bi. mën a gestu ñi nga xamante ne ñoo nag loolu laa wax. parce que man damay dégg sax ñu naan dimanche dina dem yoof dem lakk foofu jën yooyu. mais loolu bi mu ko déggee tamit te xam na ni lii askan wi la moom mooy ministère de ministère de la pêche ak ministère de la santé doyul rek ñu wax ci média yi quoi la ñu def wàcc ci terrain bi. xool géej gi yëpp xool li fi nekk ñun fi nekk ñu fekk nu fi ñun nga xam ne ay mareyeur lañu ñii ay baana baana lañu ñii ay euh, pêcheur lañu ñu dikk si ñoom. ni leen mais kon amul kenn ku leen fi seet ci ñoom. wala ci yebal fi ndaw kenn kenn ku ñu fi yebal amul. li fi ñëw daal tele yi ak rajo yi ñoo fii ñëw man ay Sen TV ak TFM ak comme yu mel ni laa fi gis ñu ñëw fi mais gisuma kenn koo xamante ni day yëngu ci jën muy ministère de la pêche ak santé bi nga xam ne ñoo xam yore yëf yi kenn ñëwul ci yéen kenn ñëwul. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. maa ngi leen di sant di leen gërëm merci. amul dara dañoo dégg ñu naan gaal yi dañuy dem biir géej waaye bu ñu demee duñu am dara lu napp ndax licence de pêche yi nga xam dañ koo jaay. waaw géej gi moom li ci nekk daanaka euh, mun ñu koo jeexal ci déw di ko wax at. parce que géej gi surtout ñun suñu géeju Sénégal géej la goo xamante ni liñ ko yenn attanu ko géej goo xamante ni bato yaa ngi napp. Euh, gaal de yaa ngi napp ca bateau yi siis gaa yi ci biir géej gi fu ñu war a nappee ñu indil leen fa problème bu yoo xamante ni ah euh, da leen di dàq mool yi war a indi jën yi jën yi war a nekk bon état moo gërgo yi yàq nañu géej gi liñ fiy napp jën yu baax yee yu ba yu ndaw yee yu mag yëpp la ñuy jàppandoo indi lañ ci soxla ñu yóbbu ñu soxla ñu bàyyiwaat ci biir géej gi loolu nekk na loo xamante ne peut-être feebaru géej gi la ca loolu yaakaar naa ni du neex a saafara liñ ciy ñaan daal mooy ki nga xamante ni mooy président bi di suñu président di Macky Sall mu dax gërgoo yu mag yi saxaar yu mag yi ñu dem ba sori bàyyi suñu mool yi ñuy napp mu ñu indi ay jën ñu di ko jënd man di jaay loolu daal mooy li nga xamante ni ñun ah fii su mujjum tàmm nañ ko daal. loolu euh, dem géej gi. licence de pêche ñenn ñi nee nañ dañ koo jaay étranger yi ba yéen fi ngeen daan dem pour nappi sax léegi mënatu leen am jën loolu am na wala amul. ah man de damay wax sama dëggal te yàlla tax man.

autant que nag ñi nga xam ne dañuy dem ay cinquante kilomètres si géej wala ay cent kilomètres si géej man moom quatorze kilomètres laa yem quinze man moom wax dëgg yàlla yàqulu ma dara. ci kaw ba ci ba ba tey ci géej gi gone yi nga xam ne ñu ngi jël gaal di mbëkki yow mi nga xam ne yaa ngi ci géej gi di liggéey ci géej gi lan nga leen di wax ci loolu. ah man de man sama wàllu bopp man képp ku ma bokkal doo dugg si gaal parce que parce a xel xel jëriñu xalaat. yow noo xoolee bantu kese nga yeb si machine yeb si ay nombal de cent personnes nga ne dangay dem Espagne man man man ku bokk muy sama rakk muy sama mag muy ku ma mënta xam di dem mais yow mi nga xam ne ni ko waxee six heures du dugg ci biir géej gi tey yow boo waxee la gone yi nga xam ne ak ñenn ñi nga xam ne ay mool lan ñooy yor gaal yi di yóbbu xale yi Espagne lan nga leen di wax ñoom. ah mais nag xam nga gis-gis yi bokkul ku nekk ni ngay gisee am na ñoo xam ne loolu moo leen arrangé. waaye ñun ñuy wax Soumbédioune moom Soumbédioune moom ñun ñun gëmuñu yooyu wax dëgg yàlla ñun gëmuñu. amul benn gaal bu fi départ jëm Espagne. Ah, benn gaal moo fi mu sa départ dem Espagne may gaa yi sooxoon fële booru Almadi ma ñu waxoon ci waxu gaa yi ñu wax bato boo ko mbëkk bato bu mbëkk ko à part gaal googu amul beneen gaal bu fi tëmb. ba ñu fi toll nii nii nii gaa yi ay waxu Espagne sax waxuñu ko ñoom job bi rek la ñu gëm dem géej rek waaw. jërëjëf ok jaajëf waay. licence de pêche yi nga xam ne état bi mu ngi koy joxe est-ce que doonul tamit loo xam ne day yàq géej gi doo xam tamit euh, ni ko sa naataango bi waxee léegi moo waral moo yenn moo leen di yóbbu xale yi ñu dem di mbëkk ji. xam olof dafa ne sàmmkatu mbott moo xam bu ciy soox. ñun ñuy dem géej ñoo xam li ci ne. lan ci géej licence de pêche yi yàqul géej gi ndànk daf ñu toroxal. te waaw parce que man sunu ministre Alioune Ndoye hmm. doomu Lebu la. bañ ka falee ñun ñëpp ñoo feetu ne am nañu ministre boo xamante ni lébu la ngal la sax dinañ ci jénn ndekete moom lébu cartable la xamul géej. kon Alioune Ndoye liñ ko falee woon defu ko. genn benn defu ko ci gisuma benn bu mu ci def. neexi tubaab neexi ree cokkaas na ba am lu mu bëgg a dem yoonam. jikkoy politicien lay def mais ñun kenn duñu ko def. soo ñu naree jommal ñu dugg ci île bii rayal la béy bu ñuul nga jóg wala nga jóge fi foofu ñu si kafu ñu ci réew ñu si suñu géej gi. defal ndànk defal ndànk maanaam ku leen dara sori ngeen dugg ci île bi rayal ko béy bu ñuul mbaadu may jàkkaarloo. mooy île bi am ay xar baax Alioune xam na luñ koy wax parce que xam na ay xàmb su naree jaay suñu géej gi lu mel ni tarafatal ay ni ñu xam ko. Eh. ñu rayal ko béy bu ñuul mu jóge fi wala mu jóg fi. mënuñu ko jéggal tànk delluwul gannaaw. non dana dellu gannaaw. nag dañu lay wax benn wax. Hmm. la 4 décembre. Hmm. adduna bi. 1960 hmm. ba léegi Senghor ba Ablaye Wade ba Macky Sall. amul benn mool bu mës a def marche. pour wan ni am na ñu ñu métti ñun ñëpp dinañ daje. place de le 4 décembre bi le 4 décembre place de l'Obélisque. waaw léegi mool yi moom bu ñu maree marche dana garaaw de marche mool dana garaaw de. dinañu marche te dinañu arrêté gée benn gaal dem jën ñetti fan. gaal du dem jéej ñu xam ndax moo li ñoo yor Sénégal waruñu ñu Sénégal. sa waay xam nga xam nga lébu moom bu toogee ci ruqam bu yëngalee rek ñëpp yëg ko mais bu ngeen daree dajaloo bi euh, place de l'Obélisque est-ce que xaj ngeen fa sax. xajuñu fa gis nga gaal yi jóge Joal dinañ jóge Joal yu jóge Ndar dinañ jóge Ndar du ñu jaaree tali parce que état mën na lal ay pexe géej la ñuy jaare ay cent cinquante kilomètres deux cent kilomètres jaaxaluñu dinañu jëlee gaal yi Ndar jëlee ko Joalo jëlee ko Casamance teeral ko fii si Soumbédioune dox dem place de l'Obélisque te bu ñu demee Sénégal yëpp dinañ xam ne xew la nañu te képp ku lekk jën rek invité nañ la. te kon fii daal mooy mooy mooy lieu bi nga xam ne fi la gaal yi war dajee daje ñeen départ fii dem place de l'Obélisque. déggoo jaraaf daw si saala yaay ndeer kon jaraaf a ngi noonu jaraaf ñu ngay jaajëfal jërëjëf.